gi nag fa waxtaan wu am solo waxtaan wu a am solo nekk fii ci Touba ko baaxoo di amal saa suñu ñëwee bis bu sell bi nga xam ne mooy guddig laylatul xadar ak yeneen i programme ñuy amal ci dëkk sel bi di Touba kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ngir leeral ñu teewlu leen aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama yi ñu leen leen ziyaara baax ci guddi bu tedd gi ñu nekk di ñaan suñu borom lépp luñ ci jaamu mu defal ñu ko aw ñu ko ñu ko barke Sëriñ Tuubaa di nuyu ci turu waa daayiratu Mafatihul Bichri ahlu xidma fii ci Touba quartier Mame Asta Walo wala boog Touba Ngirane ma nekk ak euh, dend ak samay euh, jëwriñ ñi nga xam ne laa na liggéey bi sama ndeyjoor maa ngi feggoo ak Serigne Cheikh Mbacke Touré muy sunu mag ci liggéey bi di sunu jëwriñ suñ porte parole nekk ci càmmoñu ndeyjooru suñu Cheikh Mbacke Touré mu jëwriñ Fallou Gallas sama càmmoñ sama adjoint moo nekk man jëwriñ Ndiassa Ndiaye muy waa daayira Xaadimal Bichri Xidma ñi taxaw ci liggéeyal Serigne Touba ci jàng jàngalante ak yar comme ni ko Serigne Touba bëgg ci dëkkam bu bii daayira bi nag ajjuma lan xamee liggéeyu daayira bi ajjuma ba ajjuma jot ñi dem ci kër kenn def fa li ñuy ci biir daayira bi am na jàngale mu fi am jàngalem diine muy téere xam-xam yi Serigne yi nga xam ne daa war taalib bu nekk mu xam ko muy juróom-ñaari téere yi loolu nag ko jagleel xale yi nga xam ne wattu alxuraan wala dañoo wàcc alxuraanul karim niki noonu njàngaleem xasida danañ ko amal ci ñi nga xam ne xale yi nga xam ne danoo toll ci fer iji dañ leen defal euh, njàngum xasida di ko mokkal di teqantal baar yi ak araf loolu bokk na ci li nga xam ne mooy yëngu yi gën a euh, ndaw yi ñuy def ci euh, koñ bi am na yeneen activité yoo xam ne dañ ko def ba damay bàgg jëriñ nga si su jotee kàddu gi mu leeral ci nga xam ne moo yooyu waaye daal liggéey bi niñ ko bindee ci affiche bi mbooloo mu jóg liggéey Serigne Touba ci pas-pas yi nga xam ne Serigne Touba noonu la bëggee ab taalibe liggéeyal ko ci dëkkam bii nga xam ne da boo xool ne wajaalhu da ëban maskana taalumi wa mawdia fikrati wa tafahumi yooyu boo xoolee daayira da ëmb lépp daayira dafa ëmb yooyu sëñ bi tudd ci xasida googu di Matlabul Fawzayni nga xam ne boo yaree xale bi ci jikko yar ko ci melokaan jàngal ko lu mu tuutut mu xam ay farataam nekk nga ci li nga xam ne loolu Sëriñ Tuubaa tënk ci way wow noonu ci Tuubaa te lépp luy melokaan bu baax jikko yu baax taalibe murit moo ci war a jiitu ndax buñ nee la kan mooy sa wasila nga ne kenn ci waa kër Serigne Touba yi lañ lay xoole mooy jikko yi rafet ak melokaan wu rafet ak yar bu tegu ci ci ci lislaam kon noonu la ko Serigne Touba moo tax ñun foofu lañ teg suñuy na nag liggéeyu daayira yi bëri ni ñu doxee waaye ñun dañ cee boole njàngale mi moo ñu gën a ñor njàngale moo ñu gën a ñor ndax nit ki balaa nga koo mën a wax dara mu def ko balaa nga ko moo tere dara mu bàyyi ko da koy xamal lan mooy lu baax ak lan mooy lu ban lan mooy farata ak lan mooy di sunna ak lan mooy lu ñu sib ak lan mooy lu xaraam yi a caaju su ko defee balaa nga koo tere day xam li suñu borom tere ba noppi balaa nga koo tere yow day xam tere borom bi kon ñun foofu lañ teg suñu tànk boole ko nag liggéey yi nga xam ne mooy social bi nga xam ne daa war jullit bu nekk mu def ko digganteem ak moromam mooy doxuk mbokk mooy ziyaara mooy xidma yi war suñu diggante kon loolu daal mooy liggéeyu daayira Mafatihul Bichri ahlu xidma ah si Ibrahima loolu lañ doon leeral ci liggéey bi kon ñu ngi ñaan suñu borom ñi nga xam ne ñoo ko simb yëpp suñu borom kattan na leen may leen doole ban àggale ko fi ñu ko bëgg a mbooleem ko ci bokkit liggéey boo def suñu borom nangu la liggéey bi ba suñu borom ful ko baax a baax barke sëriñ Tuubaa ak xasida yi bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk yi seetaan si internet bi di Baol Média ñu ngi leen nuyu di leen ziaraat baax di ziar mboolem koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan euh, ñu fas yéene indi yéen ci ak leeral ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko muy bisub Laylatul Qadr ñuy waxtaanee liggéey bi nga xam ne waa daayira Moukhaddamatoul Khidma dañ koy amal muy programme annuel yi nga xam ne daayira bi da koy amal daayira bi nag ku xool ci image yi nga xam ne daayira bu mag la daayira bu mag la boo xam ne lépp fukki a ngi nii ñuy dox di liggéey te liggéey bi saa su ñu ci gis ay tawfeex yu yaatu wax di yàlla programme daara ji nag bi ci jiitu mooy chaque ajjuma dana amal daayira daayira yi ñi amal mooy kenn ci mbokk daal bi moo koy aaye bu ko defee ñu dem amal fa daayira bi buñ jullee toog saan lay tàmbali ba ba ñuy julli timis ba noppi daara ja am na ñaari kuréel ñaari kuréel yi ñoo fay jàng danañ fa def ay waxtaan am na ay tuutànk yoo xam ne dañ jàng xasida di ko mokkal danañ ko tari ci daayira bi loolee mooy programme bi nga xam ne da koy amal ci daayira yi ginnaaw loolu weer wu ne danañ ci jël benn guddi muy guddi alxames muy guddi ajjuma ñu ñaanal ci way dawlu weer wuñ dugg rek dañ ci jàpp benn alxames muy guddi ajjuma ñaanal ci way dawlu yi loolee nag ñoo ko amale fii ci daara ji bu ko defee guddi googu dañ ciy invité génn kuréel mu ñëw ànd ko ñun ak kuréelu daara ji bu kookee jàngee ba euh, waxtoom mat kuréel daara ji ñaan ñu ñaan ci way dawle jataay boobet dañ fay jàng alxuraan dañ fay jàng xasida ndax bu ñëgsee ci jataay bi bu kuréel yi jàng dañuy seddale jukki alxuraan ak jukki xasida yi mbooloo mi di ko jàng buñ paree lépp ñu yéene ko way dawle ginnaaw loolu daara ji am na taxawaay yu am solo yoo xam ne lu mel ne màggalu Poroxaan ndax suñu yaay yi ci yi bi di soxna jaara yi dañuy màggale Porokhane waaye at mu ne dañ koy ànd ak waa daayira ba fàttali di seetlu xidma ñuy dara kër sëriñ kër soxna Marie moom suñu saa basiiru liggéey bi nga xam moo fay am mooy liggéey waañ ak liggéeyu daara ja fii yëpp kër ga waa daayira ma fàttali di seetlu xidma ñoo koy amee ndax boo déggee ahlu xidma gi rek dañuy yëngu ci ay liggéey ndax bépp xew-xew bu am fii ci bi daayira bi moo koy taxawee loolu ab liggéeyam la boo xam ne wax di yàlla mbooloo mi yëpp gis nañ ko te saa su ñu ko ci yëpp di leen ci jaajëfal baax a baax ginnaaw loolu bis bi nga xam ne moom la ñu am tey muy bisub Laylatul Qadr moom day bis la boo xam ne annuel la daayira bi di ko taxawee yàgg nañ koo taxawee bu njëkk ci daara ji rek lañ ko daan def bi mu demee ba gis na xajutu ci daara ji lañ ko génnee di ko amal fii ci mbedd 30 bi ñu koy amal nag euh, di ci invité mboolem kilifa yi nga xam xam nañ leen ci yoon di ci jiital Serigne Bass Abdou Khadir mi nga xam ne délégation bi ñëw na léegi ba door a wàññeeku ak mboolem kilifa yi meen ci yoon wax dëgg yàlla sëñ Mourtala moom sëñ Fallou ren ji yebal na fi délégation ndax moo amoon yéen teewaay mu dund nga xam ne bis bi du bis bu ndaw bis goo xam ne dëkk nga ci gox bi wala li wër gox bi ko waxee rek sa xel yi ñëw di ko ànd ak ñun wax dëgg yàlla muy lu am solo nii ñu koy dundalee nii lañ koy fas yéene dundal ba ba set wecc nii mu mel ci feesaay ak mbooloo da lay mel ba set wecc loolu nag ñu ngi sant yàlla suñu borom wa taala ndax daayira bi ay ndaw lañ yoo xam ne dañuy góorgóorlu bëgg lu baax waaye nag lii ñuy góorgóorlu gis nañ ne kilifa yi bépp buñ dem wax la ko ñaa ngi ci ànd ñun kuréel yi nga xam ne nekk ci daara ji nag ñoom seen activité activité yu am solo la ndax kuréel gi boo xoolee ñun semaine bi mu sept jours yëpp dañ koy répété bu dee kuréel 1 day répété samedi dimanche alterné bu dee kuréel 2 day répété talaata àllarba baax na si nga xam ne ajjuma rek moo ci des bis bu ñu répété wut te ajjuma dañuy daayira kon mu mel ne daayira ma fàtte bi seen xidma moom semaine bi yëpp dafa am activité yu muy doxal nga xam ne ñun daanaka ak bu liggéey ba wàcc ci liggéey bi rek ñoo ngi ci bi xasida yi mooy kuréel yi nga xam ne boo xam ne dañ koy def liñ ci jublu moom mooy dañoo xam ne ndaw deretam day yëngu ndaw faaw mu yëngu nekk ci dara ñoo xam ne bu nekkul ci lii dana nekk leen te ñoo xam ne lii mooy li te mooy li sëriñ bi bëgg ci dëkk ñu fexe ba bépp ndaw boo xam ne nekk nga ci koñ bi ñu namp dal la ci yar lañ nii nga gis ñaari kuréel ñoo ngi formaat geneen kuréel muy goo xam ne ku tànk ndaw lañ xam naa ren ji bëggoon nañ barkeelu waaye xataayu waxtu moo tax barkeelu waaye waroon nañoo barkeelu noonu nag lañ ko wéyale ci liggéey yëpp yi nga xam ne ñu ngi ko amal xam naa programme yi bari waaye yooyu moo nekk si yoo xam ne mën ko ci tudd ñuy sant baatay gërëm mbokk yi nga xam ñoom lañ taxawal sama loxo càmmoñ Serigne Dias Ndiaye coordonné jëwriñ ne liggéey bi sëñ Moustapha mi mi doon wax léegi mooy jëwriñ ji waaye sëñ Ndiass mi mooy topp kii sama joor nag mooy kilifa liggéey bi wax dëgg yàlla ñu di ko ziara baax suñu mag bi baax la joo ne liggéey bi ñu liggéey rek waa koñ bi yëpp rek wax dëgg yàlla ci taxaw gi nga xam ne ñu ngi ko taxaw daayira ma faatoon bi si daw xet na ak jàppale gi leen di jàppale baax suñu borom taxaw leen sàmm liggéey bii ñuy def di ci liggéey Seex Xaadim ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom saxal ñu ci te indil ñuy xéewal yoo xam ne day ànd ak le ba fi ñu ko bëgg a ñu yóbbu ko fu kawe njor bari Seex Xaadim di sant waa Baol Média FM ñun ñëpp wax dëgg yàlla sëñ Modou Diop ak sëñ sëñ bi Diop sëñ Ibrahima ci taxawaay boobu boo xam ne ñoom amal fii ci daara ji ñoom nit ñi ñoo ànd ko ñun ñu ngi leen sant di leen gërëm baax day ñaan suñu borom defal leen tawfiq defal daara ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi